asalaamaaleykum mbokk yi góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di nuyu bi ma duggee sànq ci kanam laa jaar am na ñu nuyu bu ma sañoon ñëpp lay nuyu jaar ci seen tur ak ci seen sant waaye jot gi mayiwu ko bon kenn ku ne maa ngi koy nuyu ci turam ak ci santam euh, te li tàmbalee mooy maa ngi koy jëmale ci moo ami Amadou Baba woon Baba wolof dafa wax ni nit kenn du ko jiital di ko fakkatal dan laa jiital say wax doy nanu bopp sëkk sëkk sëkk li ngay wax doy nanu ensuite ñi ma jiitu li ñu fi wax mënuma fee wax dara dara dara lu ci yokku parce que wolof njaay dafa wax nii euh, ker kenn du ca mbaar te li li duuf ci nag bi lépp kenn mënu koo dugal ci kàddir gi mënuma fi wax lu ñu fi waxut te wax joo xam ne ay waxit la amul solo euh, waaye danaa danaa jéem rek tuuti rek li may tàmbalee mooy ñaan damay am habitude léeg-léeg yu néew yi may génn ci ci audio ak ci yeneen néew parce que yaram wi mayu ko dama ci dama ciy jiital ñaan mi laaj na ko ñaan gi may njëkke mooy at miinu ne di 2024 yàlla na gën at yi ko jiitu yépp yépp yépp rawatina nag miinu génn at miinu génn di 2023 yàlla bu nu borom nattooti nu dundaat ko euh, yàlla na sunu borom def li nga xam ne noonu ñëpp moom lañu ragal te nu war ko ragal ci sunu diggante fekk le 25 février 2024 yàlla na lu ko sunu borom bi umpale moom mi dara tëwul yàlla na fi delloo si dal yàlla na fi delloo si jàmm yàlla na fi delloo delloo si xel yi xam naa du yomb nag waaye sunu borom dara tëwu ko du yomb ak ki nga xam ne moom la yàlla teg sunu bopp réew mi boobaak léegi mën na fukki at ak ñaar waaye sunu borom moom dara tewu ko eh, yàlla na yàlla def nu àgg foofa ci jàmm li nu fi ragal lépp yàlla na nu ko sunu borom wumpale yàlla na nu fa àgg def élection boo xam ne bii bu leer nàññ lay noo doon boo xam ne kii ña war a bokk ñépp dañu war a bokk senegal seet këleen doy ñu tànn ko dénk ko réew mi te bu boobaa yàlla bu mu tas sunu yaakaar yàlla bu mu tas sunu yaakaar ca ñaar ña ko jiitu ñëmadul tudd man naam am na ñoo xam ne ñii am nañu cofeel ci ñoom euh, dafa am lu em lu am jàng naa fi lu baree bari ko yàlla xam ne ko di jàng naa fi lu baree bari damay liir damay déglu débat yi de moins en moins laa koy déglu parce que léeg-léeg dangay déglu débat yi loo xam ni ne lii tubaarkàlla bañ koo dégg sax a gën danaa jàng ci presse bi waaye jàng waxi nit ak nit ka taxaw wax ko wuute na te loola dafa dafa ma dal fii dégg naa fi ñoo xam ni ñi boroomi xam-xam yu wér a wér a wér la doon jële naa fi xam-xam bu wér a wér a wér am na lu baree bari leeru loon sama xel leer na maa ngi leen koo gërëme di leen ko sante bu baax a baax a baax euh, dafa man lu ma xaw a jaaxal danaa leen ko laaj yéen ñi nga xam ni yéen a ma pi xam-xam danoo toll ci nous sommes tey le 17 janvier 2023 ki nga xam ni yàlla da koo teg ci bopp réew mi li ko fi dese matul ñaari weer mu war a dem kooku jàpp naa ni la nga xam ni moo doon ñaari doole yu mu doon sukkandiku benn bi di décret décret bi le décret a perdu beaucoup de son nu ma ko mën a waxee doole ji wàññiku na parce que diggante bi jàpp ma ne amu fi kenn koo xam ne kii nit am na fi solo dana ko fekk fa mu ko jëlee yóbbu ko feneen bon na wàññi ko na bu baax kooku kenn waratu ko fee ragal leneen li muy sukkandiku li wala bi wax nañ ko mooy ce qu'on appelle les fonds politiques et ça c'est important fonds politiques de huit milliards par an huit milliards des gens disent même que euh, am na lu ñu ci yokk loola wóoruma man lu ma wóoru du ko wax du ma ko wax mais li ma wóor mooy ci la ma yaakaar annuellement danañ ko wateel huit milliards de fonds politique yoo xam ni nee nañ lu ko neex def am na ci kenn koo xam ni ci ñoom sax yàlla na ko sa borom bi yërëm parce que yàlla def na ci moom lu ko neex nee na bu ko neexee sax lakk ko milliards di mille millions ñu jox la ci ñu jox la mille am na ñu ne sax am na lu ci yokk wóoruma duma ca parce que man maa ngi bokk ci waa kër Kumba Munde yi damaa yow ba jàpp donc euh, ñaar yooyu mu sukkandiku woon bii amatul solo bee ba tey des na fi mais dama jàpp ne yéen boroom xam-xam yéen ma tax de parce que moi je me pose toujours la question euh, les membres du conseil constitutionnel ne sont pas quand même des n'importe qui ña fa jële ñépp dafa am fu ñu jaar avec à la tête ce fameux Badio Camara ñooñu fii mu ne kenn mënu leen a xabal ci décret te la ca des am na ñu koy wax nag wóoruma am na ñu ne loolee ca des ba tey am na lu mu ci man euh, lool yi amoon na parce que maa ngi fàttaliku euh, bu ma turam na peut-être ñoo xam ne ñi ay kim lañ mais mënuma ko bañ Idriss Seck ba nga xam ne haute cour de justice mi ngi fa ko fi jugé devant la commission d'instruction de la Cour de justice, il a déclaré avoir géré des dizaines de milliards dans le cadre des fonds politiques. Et le président de la commission de lui dire mais loolu mun la ne fonds politique mun na mat loolu mu ne ko chaque fois qu'il revenait de voyage avec des aides budgétaires nangam nangam il les mettait dans les fonds politiques notamment dans deux comptes compte société générale ak compte bi nga xam ne léegi euh, CBAO nu mu tuddati Attijari léegi mag laa damay fàtte ak benn compte bu nekk Paris nee na bu ñëwee rek ca la koy dugal wax ca yu mu cay def yoo xam ne dama la commission d' instruction de la haute cour de justice il y avait au moins cinq ou six journalistes qui ont reproduit ça le lendemain mu ne weeru de am na enveloppe boo xam ne bii dañuy jox gendarme mu dem jox diw jox diw ñamuy jox ay mag yi jëmm lañu officiers supérieurs, officiers généraux, aux magistrats, chefs religieux, notables, etc. etc. wax na sax baax la mu daan joxe nangam la am na ñu ne continuer na wóoruma Aliou Ndao l'ex procureur de la CREI nee na foofee Ablaye Wàdd daan jaar ak ñoom ba tey Macky nga fay jaar ak wóoruma nag waaye moo ko wax mais jeune ne crois pas que ce soit quelqu'un qui raconte des histoires waaye même bu dee loolu moi je suis membre du conseil constitutionnel avant après avoir été nommé à des postes stratégiques avec des avantages exorbitants parfois dem pas passer soixante-dix ans nga xam ni loo gudd gudd fan ñaar fukki at wala fanweer at lay doon yàgg-yàgg dangay ngay dajeek sa borom jàpp mu ne toll te yàlla jox na la wëccu la loo xam ni li wax dëgg yàlla wëccu la mën nga caa dund yàgg sa njaboot ñooñee fa ne ndax fi ñu jaar jàpp ma ne ñu loola dëgg-dëgg war na leen ko jaral jàpp ma ne it war nañoo am ragal gu ñu ragal Macky sàll gu tax ñu topp ko ci lu ko neex mais boo seetee mbir mi day mel ni loola dafa am parce que il a eu un objectif à réaliser depuis trois ans un objectif pour lequel il a mobilisé tout tout un État est-ce que ñooñu am nañu sañ-sañ ànd ak moom. pour wut lu ko neex loolee mu bëgg ñu def ko moi je me pose la question te peut boo seetee li am day mel ne loola loola dëgg la loolu loola daal man je me pose la question bu loolu wiyee lii ngeen wax ci fichier c'est extrêmement important te yéen ñi ko wax wu ne pas de la dernière pluie li ngeen di wax xam ngeen ko fichier bi c'est extrêmement important te fichier bi ni ñu ko waxee bu fekkente ni moom lañ nar a demee élection man day am na am tiit xawma nag noonu lay demee de te yàqu jàpp jàppuma ni sénégalais yi dana ñàkk fayda ñàkk fayda gu toll nii fichier bii lii ñu ci wax c'est le même fichier avec lequel nous allons à l'élection à l'importante élection du 25 février 2024 on a le temps normalement ni ko professeur Guèye waxee waxtaan seet nu ñu ko seetaanee ça ne va pas prendre beaucoup de temps loolu mun la ñàkk c'est une priorité ce fichier-là on ne peut pas aller à l'élection présidentielle avec et je crois que les Sénégalais ne ne ne pas loolu daal man yaakaaruma ko ensuite li ma bëgg wax mooy euh, Sénégal. dafa noo war a gënal sunu bopp nun ñëpp tout le monde ne pense pas de la même façon chaque veut être président et ku ne na la nga ni man danaa nekk président de la République danaa nekk candidat waaye nag par de la loolu par delà cette liberté que nous avons n'est-ce pas de prétendre à participer à l'élection présidentielle Sénégal dañ ko war a jiital sunu bopp Sénégal dañoo war a gënal sunu bopp Sénégal danoo war a gënal suñu malgré tout ce que peut peut-être euh, la différence qu'il peut avoir entre les uns et les autres bëgg-bëgg yi les égaux et cetera et war na noo fàpp euh, Sénégal jiital ko jéem a ànd seet li nga gën a xam moo gën ci noonu nu def ko loolu daal lu lu lu war a lu war a mën a nekk la bi may tàmbali dama ne man duma ci sori ngir euh, ki nu jiital wax na ba pare te kenn du jiital nit di ko fakkatal li ma jàpp mooy am na loo xam ne lii man duma ko koo xam ne kii duma tudd turam waaye duma ko weddil dara duma ko weddil dara feeg li nu desee ku néew lépp lu mu fi mën a def ba li nga xam ne lii moom moo doon objectif principal dana ko def dana ko def képp koo xam ne kii bëggul nga bokk jàpp mu ne da nga bokk képp koo xam ne kii bëgg na nga bokk jàpp ne da am na ñu wax na leneen aussi fa lay terminer dama koy wax nag avec réserve parce que nag maa nga bokk ci waa kër Kumba mu de damaa yomba jàpp lool ci li nit ñi wax on fait jouer un certain rôle à ce Badio Camara duma ci sori j'étais quand même na l'OFNAC pendant deux ans je connais mm, am na lu tuuti lu ma xam jàppuma ne loolu laa yaakaar jàppuma ne ku mel ni Badio Camara si ça ne dépend que de dana jël dogal boo xam ne du neex Macky Sall waaye nag ils sont sept moom kenn la fa est-ce que loolu même bu fekkee loolu nit ñi wax dëgg la parce que néew ma dëgg la wala déet waaye li ñu wax nee nañu jàpp ñu ne dana jël benn dogal bu naqari Macky Sall te loola li ma ci jot a nekk ba ma nekkee of nag mënees na koo dégg waaye lii daal sama xel mooy leen benn kenn la ak juróom benn yu nekk ci wetam jàpp ma ne xanaa ñooña danañ ko topp ci lu ko neex